jërë ngeen jëf ya euh, euh, internet yi ginnaaw bu ñu leen nuyoo ñu leen di euh, jaajëfal xibaar bu neex a neex rek daal di jëpp jëm ci ki nga xam ne rek moo di président Ousmane Sonko ginnaaw rek bi muy jànkoonteeg ak ay coono yu méttee méttee ginnaaw bareer ya nga xam ne rek tegoon nañ ko foofee ca buntu këram ñenn nag yëkkati ay kàddu di xam ne ne rek lu ni mel daal nañ koy wàññi donte nag jeexul waaye gis nañ ne rek barrière ya nga xam ne rek nekkoon na foofee ca buntu kër Ousmane Sonko yu ci baree bari rek daal dinañ koy dindi bu ñu sukkandikoo rek ci sans limite moom nag moo yëkkati xibaar yu ni mel di xam ne ne rek barrière yooyu nga xam ne nag tegoon nañ ko foofee nag ca kër Ousmane Sonko toogaanu ko yu si baree bari rek daal dinañ koy dindi. ba mu des rek ya nga xam ne nii ñoo jëm foofee nag ci kër Ousmane Sonko yooyee rek la ñu fa bàyyi néegun mbir mu ni mel nag mu ngi wéy ja di jur rek jàng ca loolee nga xam ne rek xew na foofee ca buntu kër Ousmane Sonko waaye mbir mu ni mel nag ma ngay wàññiku donte ne jeexagul ca foofee ca cité kër góor gi.